dama bëgg sénégalais yëpp lañuy ñuy waxal dama bëgg ñu xam ni kii ñu settal mbir mi parce que dafa am loo xam ne da ngay seq ak nit doxal doxalu nit waaye boo demee ci digg bàyyi ma bi ne danga fay nite nitelu ci quelques secondes lañ lay wann say yax sax dañ koy maccaat mu jeex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 ñaari fan kilifa yi ñaan ñu ko ñu nangu ko ñu jàppoon nag ni bu doon ab nit lañu amal affaire ak li xew yépp bu weesoo dina xam ni li woon nekkatul que ni mu noote woon askan wi jàpp leader politique yi di tëj jàpp mouvement citoyen di tëj que loolu jeex na ci réew mi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 bu lii amee mu génn ci te yàlla xam ne ni jaaxle woon na ba ni Sénégal di toll yëpp te moom mu ne mooy président de la république périmètre am weesuwul woon Mermoz palais de la république te ay chars de combat ñoo ko doon escorté waaye Sénégal yëpp a seede bi mbir weesoo ba léegi ñun li ñu diglante woon ak kilifa yi ñun wàccoon nañu ak ndax boobu ba léegi ñu ngi ne tekk tekkaaral kenn dégguñu ñu wax kenn dégguñu ñu xuloo kenn dégguñu ñu saaga kenn dégguñu ñu xeex waaye njéeréeram njéeréeram yooyu nga xam ne ñoom ñëpp bi mbir mi jaxasoo ñi ngi woon ci sous-sol yi ñi dem tëju ci hôtel yi ñu libéré leen ñu dem wër plateau yëpp xa xëyee saaga gontoo xaste ak di menacé moom ci boppam nee na yéen yaayooyu ma ngay def tournée tournée politique mu naan tournée économique jël ay centaine de yoo xam ne suñu alalu réew la ñun ak ay oto yoo xam ne suñu oto réew la ak carburant boo xam suñu carburant réew la dem di yëpp ay car rapide ak ay njaganjaay pour dajale ay nit nee na pour dalal xelam defe naa su dee dalal xel rek la bëgg am na ay bërëb yu tudd dalal xel diggante Thiès ak Fatick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 waaye li gën a yeme du lool de fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi te bi mu jaaxle ba jaaxle moo woo kilifa diine yëpp ne leen wax leen wala làmbay ñaaw nit dangay am jom nit dafay am jom ñàkk jom weesuwul bi ñu lay làmb làmb yu metti yaa ngi tëju fi nga tëju fu ne nga woote fa wallu bi ñu demee ba may la tuuti oxygène nga ñëw di tëkku nit ñi di leen menacer waaye ma dalal xelu Barthélemy Diaz li ma waxoon waxaat ko Macky Sall tuuti na torop torop torop ci tenu ñun dama ne téeméer dama ne téeméer téeméer yu mel ni ma Sall boo leen dajee woon ma na ko Barthélémy Dias tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat réew mi réew ma rek ma yeggali parce que 19 heures lañ ñu may te dañu bëgg a nekk ñu discipliné dama ne réew mi benn sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te sénégalais boobu dafa am tur am sant mooy kan benn sénégalais la amul beneen moom lañu ñu am firnde bu leer nañ ni réew mii dootu fi nekk candidat wala dina dox suñu kaw cadavre pour nekk candidat ci réew mi kon ñu wax leen ni état de grâce bi jeex na.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 noonee nag lañuy ñuy ñi nga xam ne ñoom lañu ñu téye tey ba tey te ma leen di lim ñi nga xam ne ñi nga Ziguinchor muy ki ñuy wax Demba Diédhiou di Abdourahmane Diallo di Mohamed Mané Babacar Diagne ak ñi des Diourbel muy njoogu Diop Ndongo Diop nga xam ne moom kaam moo ci gën a doy waar ak ki ñuy wax Ablaye Fall ndax ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen dañ leen ne ñu ngi leen di jox ultimatum parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ak ñi jotul teew ak ñi génnoon di manifesté yëpp dañu war a xam ni ñun ñëpp on est le même corps gis nga bu ngeen engagé wu ci benn direction général du bàyyi soldat soldat du bàyyi général Ousmane Sonko Ousmane Sonko ëppul droit ci liberté que Ndongo moo tax dañu bugg leen envoyé un message ñoom ñoo ñu des foofu lañ ci war a def yëpp ñu ngi koy def ba léegi ci jël ay avocat ci jàppale leen ñoom ak seen njaboot dama leen bëgg ni on ne vous lâchera jamais te dama bëgg ñu xam ni lii manifestation bi avertissement la tant que wàccu ñu leen peut-être semaine prochaine.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 et qui fabrique même des preuves pour rek faagaagal ay nit loolu mënatuñu ko nangu ci senegal moo tax dañu ne tànk que libéré leen dans deux semaines suñu naree daje fii te dinañ ko def sur l' ensemble du territoire national su dee jàpp na dinañ ko may fu mu noyyee ndax na boppam ne fu ko neex ak suñuy milliards nag dajale ñu ko neex waaye ñun ñu ngi koy xaar fii te ñun xam nañ ni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 ay intervenant wax nañ ko fii kii ñu ko seetal yaakaarul lu dul ci wuruj ay élection te jàpp na ni élection locale yi mooy anticiper 2024 buñ ko seetaanee ba mu ba mu mbuxum élection yi la lendemain lay génn taxaw am sañ-sañ ne moom dina euh, briguer beneen mandat en 2024 la jeunesse a les cartes en mais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 waaye quartier par quartier laa bëgg quartier par quartier maison par maison sax laa koy commencer maison par maison quartier par quartier commune par commune ville par ville région par région yéen la jeunesse le actuellement gën saa bëri defe naa eggul 7 million les primo inscrits de ce pays ñoom ñëpp suñu génnee voté wu massivement inscrire massivement ak ñi ñu bindoon ni ne peut pas voter ñu dem rectifier fichier bi dina dépasser dix millions d'électeurs te ñiy bindu ñëpp nag à quatre vingt pour cent ñu wàcc Macky Sall ak ñi mu àndal kooku mënatul gagner élection Sénégal du élection locale du législative du présidentielle Macky Sall est fini c'est une page tournée li ma waxoon rek dañ koy dañuy masaxaa rek gunge ko ba 2024 lan mooy doon nag lan mooy doon nag diggante bi lan mooy doon diggante bi ma ngay dependre ci moom ñun jàmm rek lañu ñu woote nit ñi wax nañ ko fii te waree nañ ñu nitu jàmm lañu toog naa kilifa mu fàttali ma li nga xam ne ci diine walla ci diine islam bi ñu gën a mi bi ñu gën a xam ñun nii nii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 ci peuple bi la ñu bokk policiers yi ci peuple bi la ñu bokk gendarme yi ci peuple bi la bokk lañuy dund lañuy dund ñoom jafe-jafe yi ñuy dund lañuy dund kon su dee loolu lay naxee boppam xam ne ne jum kon ñu leen di woo ñu leen di woowaat ay menaces am ko ñun on n'a pas de leçon à recevoir d'eux nee na terrorisme waaye la seul terroriste mooy ci ki ku dem recruter ay nervi ñu dem di tiire ci ay xale bare ci treize kooku mooy terroriste nee na des gens qui sont soutenus par l'étranger ñëpp xam nañ ni le seul boo xam ne préfet étranger la nga xam ne lu am day daw jëm dem jëli ndigal taal avion def ci suñu kérosène jël ndigal ñëw yéen xam ngeen mooy kan mooy kan léegi nag nee na respect des institutions waaye ñun fii la ñu bi muy taxaw naan on va ab Ablaye Wade ñun waxaguñu loolu kook suñu ñëwee ne moom daf ñuy jox ay conseil est-ce que loolu yellu na ci moom. léegi nag bi ko dese mooy nee na comme dafa jël xaalis wasaare ci lu bëri ci ay organes de press heureusement qu'il y encore des organes indépendant et dignes mu dem wasaare ko ne leen seen mission mooy saa yu ngeen xëyee wax leen lu bon ci Ousmane Sonko. waaye plus yuy wax plus Ousmane Sonko di am bay na ci senegal ndax loolu du fi guléet ñu ne loolu doyatul ñu ne loolu ñu ne léegi comme loolu doxul te ñu gis ni nag am na benn mbir moo xam ne nee nañ ku ñuy wax Mark Zuckerberg moo ko fi créé waaye dafa mel ni yàllaa ko andi rek muy xéwal. nee na léegi booboo ko tere nelaw waay waay waay dama ne dama ne nit dafay am jomb te di fàttaliku démb ndax la magie du clic et du clac du man maa ko créé fi du ko fi waxoon bi may kon dama bëgg ñu wax ni yéen ñëpp laay waxal sama frère Bougane wax na lu jëm ci nu ñuy dëgmalee élection yooyu M2D du plateforme dafa di boo xam ne dafa dajale ay mouvement citoyen dajale ay parti politique waaye lii woon objectif am dëgg mooy lépp lu jëm ci faaga démocratie ak lépp lu jëm ci yoriñ gu ñaaw gu ñu yor réew mi ñu jëlee ko fi waaye acteur politique yi ñoom man am naa certitude ni ñi war a ànd nañu ànd ci élection législative yi euh, locale yi te gëm naa ni li ëpp solo ci ñi nekk ci opposition bu soobee kii bind am naa yaakaar ni dinañu ànd te dinañ fi duma Macky Sall ak ñi mu àndal duma goo xam ne dañuy wax 2009 2009 du dara nañ ko teg fële man loolu laa gëm lu ñuy liggéey la nag waaye yéen ñii nga xam ne yéenay ndeyu mbir gi yeneen ndeyu mbili gi du ñun yéen yéen a nekk ci terrain bi di def porte à porte yéen nekk ci terrain bi di wax ak sénégalais yi lenn rek lañ leen di ñaan na ngeen am confiance ci seen i leaders yi politique xam leen ni lii ñu sumb te ñu daj ci lu ne te ñu ñàkk ci lu ne duñ ko mus a tayle duñ ko mus a yàq duñ ci mus a def loo loo xam ne lu koy yàq la loolu rek laa leen ñaan li ci des préparé leen fagaru leen. parce que bu soobee yàlla Macky Sall wiiri wiiri jaari xam nga leen am na ko wax léegi tappale yi muy def yëpp jaru ko parce que wàcc daanoo ci gën a gaaw est-ce que ñun ñëpp d'accord nañu 2024 dina am élection présidentielle kan moo sañ ne fii 2024 du fi am élection présidentielle te dàq élection teewul élection dina am moo tax ñun nañu nekk ci ñu nekk rek di liggéey nañu dànk fanaanal nañu daas fanaanal nañu waajal bu soobee yàlla élection dina am ci réew mi te 2022 bi élection mënul ñàkk man de ma wax ko fii léegi je suis député à l'Assemblée nationale j'ai été élu au mois de juillet 2017 au mois de juillet 2022 ma delloo leen seen caabi oto delloo leen seen carte je ne serai plus député dans ce pays falu ma kenn falu ma pour cinq ans un jour waxuma dañ maa fal pour ma def un bu cinq ans yi mu jeexee bés boobu laay pare ñoom waajal nag ànd ak ñi ñu ñi ñu war a ànd lépp ci opposition pour que assemblée nationale bi nga xam ne mooy li gën a tëj li gën a salte li ñu mës xam tey ci ak ci assemblée nationale pour que ñu raser daal fi andi assemblée nationale boo xam ne avec une majorité de forte de l'opposition mu préparer le départ de Macky en lii mooy agenda bi nañu jublu ci loolu te buñu nangu ko ñu divertir waaye dama leen bëgg wax waa waajal leen seen bopp ci li mën bu dee Macky Sall jàmm la bëgg dina ko am bu dee safaan ba la bëgg dina ko fi fekk parce que moomuñu te ëpp ñu doole maa ngi leen gërëm di leen sant